mbokk yi salaamaaleykum tey jii dama leen indil gan gu mag a mag a mag da tax mu nekk gan gu mag da ngeen koy sopp dikk déglu bare na ci yéen ñoo xamee ni bu dimanche lu ñuy def bu euh, ñeenti waxtu jotee rek bàyyi nañ ko pour daw ca rajo ko ndax sopp sama invité tey bi di déglu ci rajo bi ba mel na ko lu ko xam ba mel na ko lu ko miin kooku nag dooroon fii ak yéen ndawam football parce que xam nga ñawoon démb euh, daf leen di indil euh, ñi fi joto football même su fekkee ni teel nañ fi jóge c'est vrai que ku def 36 ans bitim réew mën nga ni gëj na fi sama gan gi def na tey jii néegu Allemagne 36 ans wante rajo bi daf ko delloo si ngeen di ko dégg tous les dimanche ci émission sport bu rajo télévision Futur Média ma ni que boo ñëwee da nga bare soppe foog nga ñëw ci ñawoon démb ñu waxtaanee ñaari tali mu di sa cosaan ba nag dugg ci biir Allemagne bi nga xamee ni da nga xam mieux que les Allemands le football allemand xam ngeen ki may waxtaanee tey jii dama leen indil du Cissé moo Kouthia gisee nañu léegi Kouthia ni mu aaye ci moom léegi la ko Kouthia jàmmante ak moom ñu soog a gisante mu nekk nag saan retrouvaille bu nga xam ne neex na ma trop parce que ñoom ñaar dañu soppante ba Kouthia dafa ay ci Thiendou Cissé léegi la ñu namantiku kon Thiendou ma jébbal la kàddu gi nga nuyu say soppe say xarit ñi lay dégg ci rajo bi. Mhm. allo Thiendou Cissé naka Bayern na. naka Bayern na ah, soog a soobu ci waxtaan wi. voilà bon lay euh, kontaan na trop ci invitation bi premièrement bon maa ngi nuyu. Euh, auditeurs u RFM yi di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xam ne fi mu nekk ñu ngi devant le petit écran di ñu seetaan. Mhm. di nuyu aussi sama grand ñaari tali di nuyu grand ONU di nuyu sama rak di nuyu tout le monde sportif. Mhm. di leen wax ne vraiment ñun muy man muy Alsane Seck di Pape Seck di Détoubaab dañ kontaan. ci le public sénégalais. jërëjëf parce que man bi ma ñëwee euh, comme ni ma la ko waxoon ci rajo bi dama ji benn vague de sympathie bu nga xam ne dafay ñëw à ma rencontre su ma ne suñu ma présenté quelque part ne Thiendoo ngi nii. waaw ouverture gentillesse bu nga xam ne vraiment dama koy déguster aussi. wax nga dëgg ah, vraiment c' est c' magnifique. jërëjëf Cissé vraiment moo tax ma di leen gërëm di leen sant. jërëjëf Cissé voilà. jërëjëf Cissé kon gaa ñi Thiendou Cissé ngi nii seen soppe yéen seen soppe. léeg-léeg ngeen ni ma laaj ana cëndu di ma ko laaj comme bu ngeen amee familiarité ak moom mu nekk nag loo xam ni dama ci kontaan trop trop trop alors cëndu si c'est base am ci Ndakaaru moo di ñaari tali bi ñaari tali yéegee dama ko ko wax mu kontaan ci même bi ñaari tali nekkee deuxième division mu kontaan parce que ñoom ñoo di cosaanu ñaari tali xam nga ñaari tali biñ ko ko dippee yàggul équipe baa ngi tuddoon ONU organisation des nations unies noonu la dooree nawetaan fii ñaari tali di entraîné tey fa la doon entraîné tey ñoom ñii la woon ñoom Cëndu Cissé Cëndu euh, euh, euh, tey ñaari tali ONU mooy démbam. mooy démbam. voilà mooy ONU boobu lay laaj. waaw ci nekkoon ak naka la soso mooy ONU bu ñoom Garan Coulibaly comme entraîneur. Mhm. ONU bu ñoom Grand Mbaye Dione avec de grands joueurs nag yoo xam ne marqué nañ le football nawetaan et même le football national. Mhm. ku mel ni Pape Gueye bu Baobab. ku mel ni Sidi Diouf bi daan football Espoir de Saint-Louis grand waaw te gaañu ndeysaan hmm. grand Matar Ka euh, y avait Idi Kanté bi jigoon na Real joué na foyer joué Idi Kanté bu Real de Bamako euh, y avait Moussa Sidibé euh, y avait Moudou Alsane y Santos hmm. Mbaylam un grand gardien vraiment voilà surtout grand loc kenn football ci lok que j'ai on a joué ensemble ci sélection Sine Saloum Sine mu ngoog kenn dàq koon football ci monde gauche bu ay waaw kenn dàq koon football lok grand lok vraiment ONU euh, dafa mës a produire de grands joueurs mhm. bi ñooñu passé nag ci la ñoom génération ñoom Yoro Jong ñëw. waaw ñoom euh, Alain Badiane. ñoom Moussa Diousé. waaw voilà euh, Ba. Seydou Ba waaw ñoom ñëpp ñoom As Diaw. ñoom Madia ñoom. Seydi. waaw ci génération boobu nag man laa bokkoon. ah d' accord ñoo jël relève grand yi. yow yow génération ñoom Seydou Ba. voilà voilà ah, mu ngoog génération bi ñoom As Diaw sa sa petit frère. voilà et ñoom Madja Diaw. oui Madja Diop. Madja Diop laa bokkoon. mais ñun ñun doon ñi nga grand yi. wax ba dem nga fa namantiku ko. waaw dem parce que tout dernièrement laa dajeeg Joal. Alioune Ndiaye. mu ne ma sama chaque dimanche ñu ngi fii di football. Mhm. chaque dimanche. ndeysaan wax nga dëgg vraiment wax nga dëgg foofu lañ la toog di football ba timis maase ñu soog a dem ñibbi. Tiendou Cissé moom laa leen indil tey. bu rajo télévision Futur Média di suñu correspondant en Allemagne tous les dimanches da ngeen uuf rajo bi parce que c'est sorti euh, vraiment da koy déguster waaw da koy nekk c'est comme à la télé comme nañ koy waxee ca rajo ba RFM c'est comme à la télé grâce à eux ah Tiendou euh, bi nga bi nga nekkee fii di fi jouer ak euh, ONU boobu boobu génération euh, à l'époque nawetaan bi ban perception ngeen ci amoon bi ngeen koy door parce que yéen yéenay yéenay devancier ñaari tali nawetaan bi naka la meloon à l'époque pourtant je trouve que nag par exemple sunu grand yi niñ marqué woon nawetaan bi mhm. ñun génération bi ci topp marqué wuñ ko nawetaan. Ah, ah, bi maa ngi rappelé y avait de grandes équipes ay équipes mel ne Real de Grand-Dakar bu Lewiakhine. Mhm. ay Vasco. temps Vasco da Gama Vasco da Gama Aliou Ndiaye ma ngi foon. Mhm. maa ngi rappelé aussi euh, Santos de Colobane bu Ngiro. Mhm. y avait un ensemble ko xam ne kenn dàqoon football nawetaan. après il a eu Reims de Colobane. Reims mu ne waaw euh, a neex que après ñi ci topp. ñi football la boo xam ne c'était vraiment authentique football pour le plaisir de jouer ngeen amoon nag entraîneur bu il était en avance sur son époque waaw Garan Coulibaly Garan Coulibaly ça c'est mon maître waaw léeg-léeg mu laajte ko nuyu bu baax a baax Garan Coulibaly ah. ah, musul def conférence ma raté ko est-ce que musul def conférence te tooguma ca kanam di ko déglu attentivement nag si si jàng naa ci moom lu bëree bëri si mooy grand ul yooyu ñoom Mbaye John euh, ñoom grand Koulibaly ñoom lay Seydi grand yooyu yëpp dégg nga maam say grand tra uh-huh. ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp vraiment Sidi Diouf Moodu Alsane ñooñu samay xarit lañ woon nekk samay mag voilà kon Djibril Wade président ñaari tali tey jii boo doon décorer les anciens. de ñaari tali kenn ngi nii. kenn ngi nii voilà moom sama rakk la sama ah, xarit. ah mag ay magam ñooy ànd. voilà lañ koy tooñee sax. sig su ma ne ko sig rek. waaw ah. mu mais grand yow tur boobu bàyyeekoo ko ba léegi. <laughs> voilà kon gaañu Tiendou Cissé laa leen indil mën naa ni Tiendou c'est le plus allemand des Sénégalais. waaw allemand yi seen bopp dañ ko jiital mais ñun tey jii. bu ñu fa doon wut bu fa doon wut consulat dañ ko koy dénk 36 euh, ans en Allemagne il a passé euh, plus de temps en Allemagne qu'au Sénégal Tiendou mhm. euh, nga dem Allemagne mhm. ça fait maintenant 36 ans sa ànd ak ba Beckenbauer yàgg trop parce que mhm. yàgg Beckenbauer bi mu leen di dégg ci ban circonstance ngeen xamante yàgg Beckenbauer mooy bi mu jógee aux États-Unis demoon Cosmos football yi 70 la fa fekk pële. waaw non début ay années 70. non 76. 76 76 waaw début 76 maa ngi ñëw en Allemagne en 76. moom mu dem en 77. Ah, pële Cosmos. ah ak ñoom Cina ak italien et cetera et cetera. moom bi deux ans plus tard benn vacance di signer benn autographe. tout à fait à fi ma doon mhm. liggéeyi. Mhm. ma dégg ko dans le journal ma dégg ko lire ko dans le journal ma ne xaaral ma dem seeti Beckenbauer. Mhm. ba mu ñëw fekk benn fil foule bu nga xam ne vraiment j'étais le seul noir là ndekete gis na ma ni ñu toog ci ci foule bi noonu ba caag mu ne ma monsieur man na ko naam mu ne ma kaay man ma defal keneen ku nekk sama gannaaw lay wax sax. mu ne ma mhm. yow laa wax yow mi sol maa ngi sol benn jeget bu marron. ma mhm. yow. Mhm. ma ñëw mu ne leen indi leen ko benn fauteuil ñu indi benn fauteuil teg mu laaj ma sama tour ne ma foo jógee ndax football intéressé na la ñu commencé waxtaan. comme ça. très très très très sympathique. bi mu paree nag mu may ma benn cassette may ma ay fañon may ma ay poster ne ma soo amee problème rek soo demee soo ñëwee oh, au je suis toujours là-bas. soo amee problème rek ñëwal. et c'était le début. c'était tout à fait le début jour boobu laa ko gis. et pourtant man sama daan dégg allemand yi dañu raciste et tout. ci yow la la la gëme ni. xëy na dañu prudent et non raciste buñ la xamul xamuñ la. waaw mais buñ la xasee ba xam. allemand moo mel noonu ah. l' mhm. nga nekk moom fi lu yàgg mu def benn barrière seen diggante. Mhm. mais bés bu la tegee xarit. Mhm. wala bés bu leen duggante c' est pour toujours. voilà bon y a des gens y a des exceptions quand yoo xam ne ñooñu ñoom ay racistes lañ on trouve ça partout. mais ces superstars là. ñi nga ne ñoom ñëpp côtoyé naa leen. muy les Bretner les Rummenigge les ONS euh, Daimler ñoom ñëpp da nga am say Sepp Mayer amul kenn ko nga xam ne am na lu ma woon lu nga xam ne kii c'est du racisme. non non non au euh, contraire très sympathique. oui oui Mayer aussi euh, déggoon naa ni souvent léeg-léeg sax da dem di seeti peut-être ci école am na école tennis. tennis ah, c'est à proche. voilà c'est à c'est à à peu cinq kilomètres. Zepp Mayer Augenthaler ah, waaw benn dëkk bu ñuy wax Antsing. waaw foofu la am euh, c'est salle de tennis. oui oui mag sax d'ailleurs bon depuis bi mu jëlee retraite am. Mhm. Euh, doom ji. Mhm. moom moo koy continuer doom ji jigéen. moo ko gérer. alors finalement euh, yow léegi yaa ngi bëgg nuru seen africain Bayern surtout. parce que par le canal de Beckenbauer. par le canal de Beckenbauer ci laa xamee ñun ñëpp. oui ci laa xamee Schwarzenbeck Stoppermbe. ñoom ñëpp nag moom moo ku nga xam ne moom moo gën a gentil gën cee nekk. Schwarzenegger qui était le super en 75. bi ñuy finale Atlético Madrid en 74 75 bi ñu football ak euh, Atlético Madrid. waaw seen seen seen plus tard Bayern doo leen 4-0. xam nga ci début de ak début de ONS. c'est la dernière finale bu ñu def deux éditions. ah voilà mu après dañ ko annulé. dañ ko annulé parce que dañu nul. ñu euh, deux jours après. en 75 à Atlético entraîneur euh, bi yoroon espagnol yi nan la tuddati waay coupe d'Europe des nations entraîneur bi. waaw il a joué ce match. ah il a joué ce match moom waaw moom moo ba d'ailleurs. Eh pour Atlético de Madrid. Eh mais Tiendou tu t'es retrouvé très jeune dans ce milieu du du tu aurais pu jouer yow avant d'intégrer le milieu des dirigeants. waaw nag dama ñëw xam nga nag xam ga euh, ab Saloum Saloum ñemewul seet <laughs> dama ñëw commencé football en été laa fa ñëw. commencé football bon on avait même une équipe bu ñu tuddoon FC Africa bon benn final bu ñu def foofu ay genre nawetaan la woon. Mhm. Schwarzenbeck gis ma. le fidèle lieutenant de Beckenbauer mi ngi ko daan waxee. waaw ne ma cëndu ma ne ko naan mu ne ma nañ dem ma yóbbu la ci amateur yi nga fa parce que am na sa benn mbokk bu fa nekk benn béninois la. Mhm. bu tudd Luka Moussa Baba. Mhm. ma ne ko daal man daal ci dëgg-dëgg George ñoom George lañ koy wax quoi George Schwarzenbeck ma ne ko George sedd bi daal su maa ngay jege sauvage yi.

ñëwal comme que yow bon yaa ngi ci football te football intéressé na la ñëwal nga def euh, sa licence ma ne ko ok bon ñu dem à la fédération bavaroise de football ñu laaj ñu tous les papiers nécessaires ay carte de séjour dans les euh, temps lu ne ñu laaj ñu ko. ñu indi. ba bi ñu indi ñu def test aussi test physique euh, des tests yu nga xam ne ñu ne ñu daal bon bi ñu paree dem leen di leen leen woo di leen ay résultats. léegi. dix yi ñu maa moom ci lañ bokk. ah d'accord voilà léegi gars yi nañu bon léegi comme que noonu la yéen léegi mën ngeen def seen licence B léegi soo leen paree ngeen dem BAD NF bu Cologne ngeen def seen licence A pour être un entraîneur plein. oui mais gis nga kayit yi dossier bañ ma ko joxee. waaw ca taabal ja laa ko teg dafa mel ni. dafa am benn xaatim buñ bind rek ne yow doo ci bokk. doo ci bok fa laa ko bàyyi ba bis ni ki tey te l'autre là le béninois. dem na dem BAD NF def licence am def licence A ñëw yore une équipe troisième division en Euh, équipe amateur la mu yéegal ko ba troisième division d'ailleurs uh-huh, après uh-huh. il a quitté dem ci pays arabe yi oui oui parce que moom c'était un ancien étudiant ah, ah, ah d'accord oui ah, kon mbokk yi ma leen di rappeler Tiendou Cissé lay ganale ngeen di ko dégg ci rajo bi tous les dimanches mu nekk suñu correspondant en Allemagne euh, ba mu fay dem xale la euh, mënoon fa jouer en amateur ñoom ñooy cosaanu ñaari tali bii nekk tey ji en première division d'ailleurs foofu lay te tëjaate waxtaan wi ak moom ñoom fa ñu jëlee ñaari tali ca nawetaan tu tuddoon Odou Garan Coulibaly di ko entraîné mu nekk Allemagne tey jii depuis 36 ans Tiendu euh, trois des pays yi dominé football bi dans le monde Allemagne ci la bokk. Brésil Italie Allemagne. Allemagne. le Bayern fait partie des quatre clubs européens les plus réguliers. Mm en Europe boo duggee Espagne diggante Atlétique euh, euh, euh Madrid Barcelone boo demee. Euh, Italie ay Juve Milan AC. Bayern c'est un club éternel. Ouais. alors lan moo indi. Allemand yi régulier. en club avec le Bayern. en équipe nationale ils sont toujours présents même s'ils n'ont pas une bonne équipe. les Allemands. daañu roodee ba booru quart de finale demi-finale. lan moo indi régularité Allemand yi. régularité Allemand mooy seen travail bi ñu def ci suuf moom moo baax. travail bi ci suuf waaw foo leen fekk rek ñu ngi ñoom seen xel mu ngi ci relève. et puis soo xoolee chez les Allemands seen anciens joueurs yëpp. kum ci mënti doon soit yaa ngi ci club bi nekk manager nekk entraîneur nekk président wala nga nekk quoi que wala au niveau de la fédération allemande de football. Oh. parce que soo xoolee fi mu nekk le directeur sportif c' est Mathias Sammer. Sammer bi nekkoon Dortmund. waaw un excellent travail depuis trois ans. Mathias Sammer waaw. c' est des rares ballons d'or waaw euh, défenseur. défenseur voilà mu ngoog bu Dortmund. Tamiloune Football Doctor. Uh-huh. moom moo fa il travail un travail excellent moom ak Olivier Biroff. bi nekkoon Italie. Biroff te marqué en 96 golden goal contre la Tchécoslovaquie. wax nga dëgg moom moo fa ñoom ñaar ñoo fa wax nga dëgg secondé par Dieter Eils kooku bokkoon na ci équipe waaw waaw ci la bokkoon champion d'Europe la. oui oui bon Hrubeš. Hrubeš borom mbëkk yi. Horst nga fa. waaw bon soo ñëwee au Bayern de foofu moom y a Beckenbauer comme. léegi mooy euh, le président d'honneur mais Beckenbauer président dans les temps ONS manager Bredner chef scout Karl-Heinz Rummenigge soo xoolee ñooñu ñëpp ay champion du monde ak ay champion d'Europe lañu mais ñooñu suñ jëlee affaire yi amee mais dafa war a dox normal dafa war a dox te loolu moom moom partout dans le Uh-huh. soo xoolee yeneen équipe yi nga xam ne mu ngi en aussi soo demee soo demee à Francfort y Bernd Hölzenbein comme manager Jürgen Grabowski ki ma ngi uh-huh. nga dem Cologne tout dernièrement sax le démissionné y Wolfgang Overath qui était uh-huh. président de Cologne nga dem Hambourg Uwe Seeler nekkoon na président quelque temps bon ku mel ni Manfred Kals yor ah. benn école de football soo demee toujours ils ont ils sont dans nag day tax day tax day tax football bi jëm poste boo ko mën sax da nga koy ko nga dëgg. def na dix ans de carrière am na lu mat cinq wala huit wala dix ans de retraite. Mhm. wax nga dëgg voilà tout dernièrement d' ailleurs. Mhm. Mehmet Chol. notre président Mehmet Chol yoroon na amateur yi dem. defi licence am. Mhm. léegi tout dernièrement avant may ah, moo yor fi mu nekk CRCN. voilà le euh, fils de de Omar Gueye ah mais Sayer foo ko parce que Sayer Sène. waaw le fils de Omar Gueye Sène. espoir bi mu représenté woon il y a ans. waxtu bi waroon na ko fekk ci équipe. amara bi équipe waaw. Euh, waroon na ko comprendre waroon na ko fekk sax ci équipe bu A bu Bayern. Ah. parce que fi mu nekk il vingt cinq ans. waaw nekk na âge bu xam ne ci ngay épanouir carrément. waaw ci ngay ci ngay ci ngay doole dëgg. mais feeñ ba tey. bon seulement booy bi aussi dafa am benn malchance parce que Van Gaal ba mu fa nee daana dugal gos bi. parce que gis naa ko mu dugal ko contre Manchester United préparation contre euh, Milan AC contre Red Bulls bu Salzbourg. Mhm. te bu à chaque fois day dugal. Mhm. ba gars yi naan waaw kii foo ko Bayern jëlee bon bi Van Gaal demee nag la Klinsmann ñëw Klinsmann moom bon. Klinsmann waaw allemand la. waaw moom dégg nga maam Mhm. ñi muy dugal mooy ñi nga xam ne moom rek la xam mais su fa man ngaal nekkoon ba léegi ah man leer na ma gosse mu ngi football en en équipe parce que nga Bayern ba ah, duñ ko joloo mënu fa fa jógee si euh, si kendu waaw parce que ci loolu la nekkoon moom manager pour ñu abale ko nee naa ko bul nangu sax ñu jaay la nañ la abale en Bundesliga nga ñëwaat mhm. dans deux ans trois ans parce que mhm. def nañ ko ak Babel bi yor Hambourg abal ko Stuttgart mu ñëwaat Philippe Lam abale nañ ko Stuttgart mu ñëwaat dégg nga am na ñeneen ñu ñu abalewaat ay Nuremberg ñu ñëwaat dañuy dem rek parce que foofu dañuy fubal te fii day day toog ci bande touche bi wax nga dëgg voilà wax nga dëgg parce que foog nga am frot na voilà cendu ci ancien yi nag daf daf daf ci am kenn ku gedd waaw koo xam ne vraiment gedd bi mu gedd daf ma naq di ba léegi mhm. dafa représenter quelque chose en Allemagne gedd parce que bi ñu galee bi ñu gañee coupe du monde bi en 74 waaw ca réception ba waaw dirigeant yi dañu invité seen i soxna waaw yi gañe coupe du monde bi kenn invité wul seen soxna. mu ñëw ba foofu. Gerd Müller avançant. mooy Gerd Müller. voilà c'est ça dafa ñëw ba foofu pour manifester nii dafay gedd. Mhm. parce que pourquoi dirigeant yi. ñëw ak seen soxna. Mhm. ñoom joueurs yi kenn autorisé lu leen. ñu indi seen soxna boobu ba tey dafa gedd gars yi bàyyi. ba tey dafa gedd. waaw boobu la gëjee équipe nationale ba léegi moom ak Bredner. waaw mais Bredner sax après ñëwaat na. waaw waaw mais kooku kooku xam nga wax na dëgg. waa waaw du ngeen ko fi mu nekk fi mu nekk. mu ngi travaillé au Bayern de Munich. moom yor amateur yi. ngi amaat Gerd Müller waaw Gerd leen yore de. waaw yàgg na leen yore yàgg na leen yore seulement aussi dafa am benn problème bu xam ne bon dafa amoon problème de famille bon jabar ji dàq ko xam rek almaa yi ñoom tubaab yi soo amee sa problème moom. su mm. police ñëwee. Mm. yow mi moom kër gi yow la ñu génne ci biti bàyyi fa ndaw sa. soo xeex sa jabar. laay lay la laa soo xeex même bu soo ko dumaa yaay voilà jabar ji génne ko mu commencé nag di naan mandi. oho boobu bi di naan mandi nag boobu Beckenbauer ak. et du Bayern waaw ñoom ko jël ñoo ko soowee. ñoom ñoo ko jël yóbbu ko cour yóbbu ko benn clinique ne ko nag nekk da ngay bàyyi del naan kese. waaw mu commencé di naan ndox ba set wicc. ba wow koŋ. les gars yi ne ko nag léegi dañ lay après ci ko joxee amateur di ko jox soldam. xam nga nag Thiendou loolu moo tax loolu moo ma neex ci dañ leen di topp di leen topp waaw ku ci nar a torox sax ñu topp tox la ñu topp ñu yëkkati la gis nga Sami Koufour bi doomam ji gaañoo ci piscine boobu ah, au Ghana Ghana yeen benn avion spécial lañ ko fréteel moom rek moo dugg ci avion bi oyente ne ko avion baa ngi ni su subaa subaa subaa nga jël avion bi dem Ghana toog fa ba heure bu la nga ñëwaat. ah c'est bien mm, la gane ah Samy Koufour la gane avion avion spécial bi doom ji dee. voilà bi doom ji dee ci piscine bi. oui oui naa ko ne le peuple sénégalais ñoom ñëpp ñu ngi loolu. ak RFM envoyé envoyé na ma carte postale. man maa ko jox sa adresse ma ne ko voilà l'adresse de la RFM. mu ne bon dinaa envoyé benn casse par remercier leen. man mii la envoyé carte postale bi. waaw naa ko dans l'émission. waaw voilà mu waaw koy. waaw man defoon naa sax du ko def. mais il l'a fait il l'a fait yi Tiendou si laay laay dalal. Mhm. Euh, di ànd ak moom ci jataay bi parce que bi mu ñëwee ne naa ko ni foog nga ñëw ñëwoon démb. ci ñëwoon demb bi dañ ciy waxtaanee almaañ yi ci ñëwoon démb bi dañ ciy waxtaane tamit ñaari tali bi nga xamee ni yéen yéen a ko sanc yéen waa ONU Garan Koulibaly Garan Koulibaly nekk seen seen maître. c'était au milieu des années 70. waaw au au a au début des années 70. au début des années 70 au début des années 70. oui oui yàgg na loolu. yàgg na loolu yàgg na loolu. alors euh, j'ai remarqué une chose Diendou Allemagne yi. Mhm. championnat barewul Afrique. Mhm. France bare na. Mhm. Italie bare na. Espagne Allemagne yi ci grande puissance yi en football. mooy pays bi gën a ñàkk africain noo ko expliquer. Euh, parce que l'Allemagne est prudent soo xoolee soo xoolee africain yi nga xam ne ñu ngi am Bundesliga quatre-vingt-dix pour cent ci Europe boobu la ñu koy jëndee indi ko en Allemagne. c'est rare ñu en Afrique jënd fa direct mu ñëw c'est rare aussi ñu jëndee Brésil mu ñëw. à l'exception de Leverkusen. parce que mhm. amoon nañu fa benn manager bu nga xam ne Rainer Kalmund la tudd c'était un spécialiste brésilien. Mhm. moo xam na bu baax la footballeur moom rek moo daan dem jëndi brésilien. Mhm. ñëw indi ko en Bundesliga. Bayern profité ci brésilien yooyu daan football Leverkusen moom moo koy mujj jënd. ku mel ni Lucio. moom moo ko jënd. Leverkusen la ko jëlee bari na. bari bari ñoo xam ne allemand moo mel noonu allemand dafa prudent. wax est un perfectionniste. parce que bon soo xoolee aussi africains soo leen jëlee directement de l' Afrique indi leen euh, wéetaay bi comme que ni nga ko waxee bariwuñu ay africains dañu am ay problèmes. je me rappelle bien le premier africain bi ñëw en Allemagne c' était Ibrahima Sendey. Sendey Ghana 71 72. Werder de Brême. génération ñoom Yatma Diop la. ñoom Yatma Ngoog. Ibrahima Sendey. waaw génération moom Yatma Diop. Uh-huh. Euh, bi Sénégal di nul ak Ghana. 68 68. Ghana nekk champion d'Afrique en titre. waaw Sénégal ma nekk que deux fois au score 1-0 jong 1 Doudou Diong ak Yatma Diop bii ñoo dugal biiwu Sénégal yi. Mhm. Ibrahima Sëndey ma nga woon ci équipe boobu. mu ngi ci équipe boobu voilà bi mu ñëwee nag dafa am denoon problème y le froid xamu foon kenn y le racisme temps boobu di nga même tout dernièrement yàggul rek ah euh, ku mel ni Yeboah ku mel ni Diédié Okocha ku mel ni Souleymane Sané daan nañ daan nañ souffrir. Mhm. terrain yi ay banaana di di leen yuuxu des cris de Saint-Jacques yu kenn xamul. Mhm. mais loolu lépp dañ na parce que soo xoolee sax soo presque équipe bu nekk am nga benn. Mhm. mais seulement ni waay waay équipe boo dem rek en général am nañ benn noir au minimum. wax dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. daan naa ci dégg Dame juuf gëj ci dégg ak Jaban. Jaban Momu Jaban. waaw euh, c' était pas Dame Diouf c' euh, Mam Mam Cheikh Niang. Euh, y' a y' a eu un nommé Dame Diouf ah. football. ah Danemark Danemark la nekk. Danemark Danemark y avait Mame Cheikh il était à Wolfsburg moom itam il est au nord dem ci les pays nordiques gëj na ma woon nag. mais Dame Diouf jaarul Hambourg. non Dame Diouf jaaru fa. fa non ah. Sénégal yi fa jaar a fait la Bundesliga parce que football nañ Wattenscheid football nañ Nuremberg bon moo fa gën a ci Sénégal. Momo Diabang aussi football na Bochum am na temps sax boo ne Bayern bëggoon na jël. Ah. waaye bi mu nekkee vraiment le meilleur de Bochum ak Bielefeld di dugal Euh, gars yi di consulter les dirigeants du Bayern ci yoonu Afrique ak yooyu. waaw bon consultation bi cest a dire ñoom en général xam nga prudence bi ma la wax ci allemand yi rek. waaw bëgg nañ nit ku parfait dañ lay laaj ba xam kii lan mooy vie ndax day naan ndax day tux ndax c'est un gars sérieux lu def fu muy dugg yooyu d'ailleurs c'est très important. Uh-huh. parce que bon euh, gis nga. prenons l'exemple de Wayne Rooney c'est un grand footballeur. Rooney man ci yow laa ko dégg. yaa ma jëkk am na ku feeñ Rooney. man maa la ko wax coupe d'Europe des am na benn anglais bu ñëw. kii dina nekk un grand footballeur bu nga xam ne Europe dinañ ko waxtaanee. yaa ma ko wax ci waaw xam nga kooku nga xam ne mënoon na ko def. nekk un très bon footballeur mooy mooy par exemple ay ku mel ne Best dans les temps ne Gascogne tu football bi dafa am fu nga da fa war a jaar ak moom. nekk un vrai sportif. am xam da war a bàyyi. parce que àndul. soo ko defee rek da nga sa carrière wala soo demee ba sa carrière jeex kenn du la considéré. wala par exemple euh, Pelé lañ gën a considéré ci que Maradona. waaw ak Mara ak dàq football. waaw mais fi nekk lu xew dans le monde. ay Beckenbauer ay Bobby Charlton ak ay Pelé la ñuy waaw mais du ñu woo Maradona déedéet waaw. parce que manque de sérieux moo fa amoon. lu ko mu daan def. loolu baaxul ci sportif. wax nga dëgg am nañ yu mel noonu en Allemagne alors yow yaa ngi Sénégal. am na information yuy jógee Allemagne te xëy na yëguloo ko parce que fii boo fi nekkee dootal déglu rajo. waaw dootal déglu rajo yëngal ni Papis Demba Cissé mi ngi jógee Angleterre. ah bon ah, pourtant pourtant Bayern proposé léegi mhm. Freiburg moom moo ne woon boo dañuy xaar parce que Bayern aussi dafa prudent parce que dañ on ne sait pas dinañu manqué suñ ko jëlee wala mu ñëw ak blessure. mi ngi mi ngi mi ngi dugg biir Angleterre. Papis ah. Demba Cissé. au moment où nous vous parlons am na sax ñu naan def contact. Mhm. avant la CAN. avec son club anglais non mais na dem foofu na dem foofu parce que foofu c'est championnat boo xam ne jàng rek dafay jàng bu baax. parce que man ñëw Bayern. Ah. parce que la concurrence va être très rude. très rude waaw une rude te euh, Gomes moom moom moom titulaire day départ. waaw bëgguma Peterson qui est là-bas aussi ñun naa la ko wax. naa la man je préfère mu dem équipe mel ni Leverkusen àndoon son ancien entraîneur bi nekkoon Fribourg ak moom. Mhm. foofu leer ma ne mhm. fu muy mais du dem pour toog ci bant parce que boos bi am na qualité yu ne man def naa ne benn avant-centre mënu ko ganale tey jii waaw Tiendou Cissé euh, c'est le sénégalais du football allemand allemand yi mën nañ ñu tey jii yéen ki ñun mooy suñu allemand pour ces 36 ans passés en Allemagne ci wetu dirigeant Bayern yi ah ñu koy consulter mu nekk fierté pour ñun am na ci allemand yu nga xam ci moom la ñu gëm a ni expertise locale bi mun na baax mais Tiendou xam nga lu ma gën a neex ci football allemand bi. Mm-hmm. lañu def de retour de la coupe du monde 1954. bañ ko gagné alors qu'il n'était pas favori contre Hongrie. contre la jël benn boulevard. Mhm. tudde ko entraîneur époque ba comme tey jii. Mhm. ñun ñu gagné coupe d'Afrique. Mhm. daal di da euh, Amar sax xale la. xam nga oncle Sepp. oncle Sepp Herberger Sepp Herberger. bi muy gagné coupe du monde 54 booba temps na ba bopp bi yëpp weex. weex tal waay. coupe du monde. mu gagné ko ñu tudde ko boulevard. boulevard boulevard ba léegi ma nga fa boulevard Sepp Herberger. mooy li ma gën a neex ci football allemand góor googu ñu teral. waaw ba léegi wax même même même ñi ci topp ku mel ni Helmut Schön dëkk ba mu dëkk à Dresden am na benn mbedd bu ñu ko tuddee. ah waaw Helmut Schön Strasse. la rue Helmut Schön ka topp ah. ca Herberger waaw ka Herberger. Herberger ñoom seulement nag Allemagne les anciens dañ leen di jox tous les honneurs. exact du ñu fàtte. exact du ñu fàtte. wax nga dëgg waaw dañuy xam ne ñii. servir nañ nation bi. ñu mhm. jox leen tous les honneurs. Mhm. voilà ba dara xewee suñuy dund ñu woowee leen. même Uwe Seeler ah. même Uwe Seeler parce que bi ñuy final euh, ak Angleterre en 66 fekk na Uwe Seeler commencé mag déjà. mais ba léegi dañ koy consulter. ba léegi dañ koy consulter parce que dañ am dañ nekk dañ am quatre capitaine d'honneur moom mooy Fritz Walter ndeysaan gaañu na. Mhm. Uwe Seeler Beckenbauer ak Lothar Matthäus. lu xew ñeent ñooñu la ñuy woo ñoom ñooy représenter Euh, capitaine d'honneur. tey génération yëpp leen reconnaître. ñëpp leen accepté ñëpp leen accepté ñëpp leen accepté. Mm-hmm. ñëpp leen accepté. ah oui oui. kon Tiendou balaa ñuy tàggoo fi nga cosaanoo. Mm-hmm. laay dellu si mais euh, doo wax dara ci Coupe d'Afrique des Nations bi bala ñuy. Euh, balaa ñuy tàggoo waaw Coupe d'Afrique des Nations bi de ma ne laay. foofu en Allemagne yéen a ngi koy xool. mais bien sûr dañ jot tous les mm-hmm. matchs yëpp la ñuy jot. oui bon euh, seetaan na ñaari match yi à la télévision parce que amoon jot pour dem stade ba bon ñu bëri nag ñu ngi crier au scandale naan équipe bi baaxul ak dugg na fi génn fii mais toujours au seuil d'une compétition. Mmh. équipe bi ah li muy représenté su demee en Coupe d'Afrique leneen lay représenté. exact leneen lay représenté bokkul du benn bokkul du benn. du benn. Mhm. du benn du même plateau. du même plateau. nga bon soo xoolee man sur le plan technique. l'équipe est valable sur le plan physique l'équipe est valable peut-être sur le plan tactique am na benn redressement bu ndaw bu nga xam ne Amara war na ko uh-huh. parce que Amara dafa am dafa chance u dafa am chance u am am am benn luxe bu nga xam ne kenn amu ko uh-huh. mooy quatre wala cinq attaquants de classe uh-huh. yoo xam ne foo dem en Europe ñu ngi fay def feu et flamme muy Papis Demba Cissé ñan euh, Dame Ndoye euh, nag nan lañ tuddee sax euh, yi Demba Ba Demba Ba Moussa Sow Moussa Sow équipe bu leen am jël leen. Mhm. xam mhm. problème mu amaat mhm. parce que bon euh, dans football où nous sommes dans ce monde football bi euh, ça dépend euh, ñu football 1 4 4 2 di football même 1 4 5. tu vois mais man j'ai fait la remarque ne Amara des fois mu dugal 3 attaquants des mu dugal 4 attaquants defe naa ne su demee kaan loolu dina ko bàyyi. match yu nga xam ne am na importance yu nga xam ne peut-être mën nañ fa souffrir. Mhm. mu gonfler milieu terrain bi. chaque chaque jour à sa vérité. chaque adversaire à sa vérité. chaque la war a defee su ko mhm. mu ne on ira très loin. la forme du jour. et l'adversaire du jour. parce que gis nga compétition yi demee noonu. ma ne ko di ngi si benn équipe bu nga xam ne xam ne ñu ngi naan favori Sénégal. Côte d'Ivoire Ghana Maroc. Mhm. mu ne waaw mais mën naa am ngi si benn équipe bu nga xam ne. kenn xalaatu ko. Mhm. mu ñëw def benn foncé bu nga xam ne kenn musu ko gis. parce que gis nga en 92. le Danemark. waaw coupe d'Europe des nations ba. <laughs> xam nga dañ ko éliminé nekk en vacances. waaw ñu repêché leen parce que Yougoslavie dafa amoon guerre. ñu jaar en demi-finale ci kaw Hollandais yi. gagné coupe d'Europe bu mag ñoom <laughs> Koeman ñoom Van Basten. pare dem attaqué en finale Allemagne yi. waaw doon leen 2-0. wax nga dëgg voilà xam nga kenn musu gis loolu. bon nga gis en 82 aussi au mondial en Espagne. équipe bu fa gënoon ay moo doon le Brésil. Mhm. bu ñoom Socrates. Falcao bu ñoom Falcao. Serginho bu ñoom Serginho ñoom Junior. c'est le plus beau Brésil. voilà c'est le plus beau Brésil te gañewul. te gañewul dara te gañewul dara mais ma mel noonu. Mhm. c'est-à-dire man li may wax mooy nañ prudent nañ traite tout les équipes yi fa ñëw comme de grandes équipes. jërëjëf lool moom mooy li nga xam ne moom mooy. li ñu war a njëkk a def. jërëjëf bu ñu xeeb kenn jërëjëf bu ñu xeeb kenn. il il est il une grosse écurie. waaw lu mu wax rek mu nekk saafara. parce que Bayern de Munich ku ñuy déglu doo coomo alors léegi balaa ñuy tàggoo Tiendou da nga entre Kaolack. Mhm. ta ville natale. oui non non non je suis man je suis né à la Médina. à la Médina je suis né à la mais mais Kaolackaay dañ la dañ la ah. dañ def mais mes ah, ah d'accord à la rue 11 yegg rue 9. rue 9 kër gu mag laa fa nekkoon sax. ah d'accord kër Alaaji Dut Cissé Birane. oui oui fa la Ablaye Dar Samb daan ñëw euh, Alaaji Ali Bata Ndiogou Wàkk Ba Ndiogou Wàkk euh, oui oui l' ancien député. oui oui ma ne fa laa jógee nag Rue Neuf ñëw ñaari tali. xam nga man léegi Kaolack laa la dugaloon. non non man je disais que Thiendou tes parents sont ñoo Kaolack ñooy Kaolack quoi. voilà mes parents ñoo ñooy Kaolack quoi man xaw ma dara ci Kaolack. ah d' accord mosuma wax def sax une semaine yu ma defe naa ne. <laughs> ci sama ci sama dund yëpp. alors le mot ñaari tali daal man ñaari tali. waaw soo dee Thiendou ñaari tali ñaari tali. waaw alors le mot que tu as pour Kaolack et ñaari tali ñu tàggoo ko. waaw mais di leen gërëm rek di leen sant te du ma leen fàtte mukk. jërëjëf lu ma mën ci doon ak âge bu mu mën ci am toujours nii laay day ci ñoom. wax nga dëgg voilà damay maase ak ñoom samay morom ñi nekk sama mag nekk sama xarit ma nekk seen rak nekk seen xarit ba léegi muy grand onu yeeg ñëpp ak grand koñ ba. Mhm. waaw man je suis comme ça. si seen Ngok ku bañ a réer da ngay tafu ci ñëwoon démb. waaw waaw mag ñi boo boo leen dee wétali ko rek doo réer doo jaaxle. waaw fa waxtaan wi kon ñu tàggoo. ma indi leen nag seen soppe yéen a ko sopp di ma ko réclamer léeg-léeg cendu bu dimanche bu dugalee ci émission bi sax ngeen ni ma cendu lu ko jot man leen dara tey Allemagne dañu nekk rek trêve moo tax dégguloon ko mais incha allah euh, ci mbedd na ak ci bu nga xam bu lay jëw bu bu FC Bayern <laughs> voilà trois choses daal leen dina ci ñëw. à nag ci ah. Afrique. Uh-huh. supporters yëpp nga Touba. ñëpp nga Touba. dégg naa waa Touba dañu bëgg Bayern Mbëmbë. waaw xam naa ni moom uh-huh. uh, uh, nee naa day ubbi kiosque. ak équipement. Uh-huh. mu ubbi Touba mu dem Touba. waaw <laughs> jërëjëf loolu dinaa leen ko wax. jërëjëf dinaa leen ko wax. kon boog ñu yemale fii waxtaan wi di leen souhaiter euh, bonne semaine de travail émission bi toujours jeudi mm-hmm. rediffusion bi lundi à 15h. Tiendou Cissé. Mm-hmm. jërëjëf. voilà merci beaucoup maa ngi nuyu aussi tous les sportifs sénégalais ñi nekk bitim réew ak ñi nekk fii. jërëjëf Cissé. voilà merci au revoir.